wala ngeen maa leen sama diggante ak sama sëriñ aja Touré bu boo boo koy nat doo xam fu mu yem ci sellaay bi ci dëggu gi diggante boo xam ni yàlla yàlla moo ko jiite ndax loo xam ne ànd bu yàlla taxul du yàgg mais boo amee sa sëriñ boo xam ne da nga koy ndamoo mu nekk sa fierté mu boole xam-xam ak mbaax nekk nit diine nekk nit jamono xam diine ni muy demee jàng ko mën ko xam ko yàlla may ko ci. jamono muy ni ko Adja Ngoye waxee biig intellectuel marabu intellectuel xam jamono ràññee ba tax président Macky Sall teg ko ci wetam mu di ko xelal loolu rëy na loolu am na solo waaye man nag suma diggante moom dafa dépassé loolu yëpp cofeel bi ma am ci moom mu am ko ci man yëg bi ma am ci moom ak soxnaam su baax sëla ajaa ngoy faal yëg boobu ñu am ko ci man ba lu ñuy def boole ma ci lu rëy ci man man sama jëmu ju jàkk fayre gi sëriñ bu mag bi kilifa gu mag gi fi ma teg yàlla ko yàlla fay yàlla dafa yàlla di gën a yëkkati. Fallou Fallou Fallou. woo ma eh, eh. na ko yàlla gën a yëkkati. moom njabootam yëpp suturaal leen. te barke ci bi. lii lu mën tey mën yàlla ful mën-mënam. ndax loolu la mérité ndax kuy def lu baax lu baax rek nga war a am te li mu ji ci lu baax ci Sénégal gi a à travers le monde bu ko yàlla fayee xolam bii jëfam jiit yàlla jëf lay fay ñu war a am yaakaar ni Sénégal kenn du dem mu des kenn du ko jiitu kenn du ko jiitu kenn du ko jiitu ndax

ndax di wane wu ci rajo yi télé yi tax na gagné élection su ma xarit Macky Sall ba muy gagné élection yi kenn gisu ko woon Tanor Dieng ngay dégg rek ak Moustapha Niasse ñu xëccoo ku nekk candidat Benno pendant deux mois ñu naan kan ma nekk candidat Benno ñoom ñaar ku gagné candidature yaa nekk président Sénégal am xale bu ñuy wax Macky Sall ñu ko assemblée nationale jaay ko doole mu dugg ci àll bi boole wu wax. suma xarit alaaji Macky Sall man di félicité di ko waaye ba mu génnee ba ñëpp ñëpp dañu jommi ndax bu ñu xamee fi nga jëm doo fa yegg man defuma loolu leneen laay def man man seeti mbokk yi laay def waaw waxtaan ak Sénégal loolu yàgg naa ko dox du léegi de. waaw man man député voilà man man yàgg naa dox ci askan bi député du peuple laa du léegi laa soog a nemmeeku askan bi na ñëw ci màggal gi ñu fi indi nag Cheikh Ahmad Bamba bisam bu sell bi sëriñ bu baax bi sunu sëriñ wax ci bis boobu mu ne ñaar la ci ñaar ñaar la ci soxla nañ ko santal borom bi ndax liggéey bi nga ko joxoon mission bi départ di ko defi ñu foog ne dafa métti métti la waaye ci moom yëgul métti bi parce que kuy dem ci mission yàlla lu ñu mën a teg da koy nangu te sëriñ bi liñ ko teg yëpp yëgalu ko yaramam ba ci Mayombe ba ci fore danse gabonaise ba ci rab yi ba ci jaan yi ba ci gaynde yi ku ñëw jébulu kenn du sëñ Tuubaa mooy pënk bu njëkk bi mooy nañ ko santal suñu borom bi ci topp mooy boo xam ni ndam la ndamul islaam la ndamu sëriñ mooy ndamul islaam kon bis bu rëy boobu muy départ pour l'exil de Cheikh dafa bëgg képp koy julit waxuma murit rek def ko bisu berne bisu teral ndax lu rëy la ci ñun ndax ëllëg ndax boo xoolee ndeysaan liggéey bu mu liggéey tubaab bi jommi nit ñi ñu jommi ndax sëriñ Tuubaa du kenn sëriñ Tuubaa amul moroom kon doog tey jii bu ko mel ni Cheikh Askia Mohamed jël bis boobu saxal ko wala dëgëral ko mandargal ko diki def lu mën lu mënul di ci def ay millions yi millions yi millions yi millions tracteurs yaa ngi fi nag yaa ngi daanu ñu ngi bâche gambien yaa ngi fi américain yaa fi européen yaa ngi fi kenn suñu sëriñ bi yàlla dafa yàgg ci ndax xam nga ni man euh, sëñ Moustapha Bassirou sëñ Mountakha Bassirou xalif général des mourides yàlla fi yàgg ci wér dafa am lu ñu boole te mu waxoon ma ko daaw jeeg te muy dëggit na ma sa maam Fodé Diouf Bour Saloum ñoo àndoon 1958 Màkka man ak moom ak sa maam Thiendella Fall ñoo bokkoon ci ba bokkoon benn bateau en 1958 sëñ Mountakha Bassirou ak ki jur sama baay dernier Bour Saloum sama baay di taaw mais sama taaw baay Bour Saloum Fodé mooy dernier Bour Saloum Mbaye Diouf Fodé mooy taaw ma maay taaw Mbaye Diouf Fodé noonu rek la kon buur yi ñu doon ànd ak yàgg la de si sëriñ Tuubaa ñu bëri ci buur yi loolu si lu am solo la euh, ma ne ko sëriñ bi man ñëwuma fi en tant que politicien déglu ma rek man dama nekk ñëw ci famille bi laa bokk dama judd nekk murit judd ci murit jébbalu nekk murit cinq ans nekk daaru salaam jébbalu fa sëñ Ahmedou Mbacke mu sëñ Modou Mamoun mu Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm man ñëw ma fi rek comme politicien yu politicien voyageur politicien du Magal je suis pas un politicien du Magal ñëw ñëw màggal ñu gis la nga ne sëriñ bi seet woon naa sëriñ bi loolu ay dóor la. ak a joo bëri man nekk ma ci politicien dóor yooyu politique dóor damay dem seen sëriñ bi na murid di gis ma wateel ma ëllëg ñooñu gëmuñ sëriñ bi man dama nekk murid kan vrai ma ne ko sax doom moo ñëw ci yow di ñaan nga ñaanal ko ba jël réew mi ndax li mu ma ci Touba nam ko ci Sénégal mu liggéey ko te xam na ne boo ko ñaanalee ah ñaan boobu day dal moo tax bi ma génn ci sëriñ ma ne sama jot rafet na man bokkuma ak dóorkat yi ñëw pour ndax sëriñ bi dóorkat yi ñëw pour ndax murit yi bisu màggal yi fi gis duñu murit gëmuñu murit man may murit saadix ñëw ñaan sama sëriñ ñaan sama kilifa mu jàppale ma ci li ma bëgg mu ne dana la jàppale maa ah sama xel war a kon ba bal ba tàkk na macha ana nag sama sëriñ bi moo nekk sama wet allahu akbar sama sëriñ te moom état bu fi ñëw jot na parce que depuis Senghor ba askan bi ci réew ko yore fu nga wax sëriñ sëriñ yi gouvernement yi ñoo leen soxla kii Abdoulaye Wade soxla kii kuy politique waaw ah, yow tamit pourquoi ñu ñëw fi ñu ñëw pourquoi dóorkat yi di ñëw fii pourquoi politicien dóorkat yi di ñëw fii ñoo soxla sëriñ si ñooy wuti ñooy wuti audience pour sëriñ Mountakha recevoir leen sëriñ Bassirou Diomaye recevoir leen sëriñ Abo recevoir leen sëriñ Moustapha Saliou recevoir leen sëriñ Cheikh Saliou recevoir leen sëriñ Cheikh Sey recevoir leen sëriñ sëriñ mais ba sëriñ askan mi recevoir ñu. mais euh, eh, est-ce que yéen am ngeen fulaak fayda bàyyil ma waa jooju man danaa excuse wu koo xam ne du ma tudd turam damaa bëgg ngeen am fula yéen xam ne Sénégal am na avant Ngor Soosu Sénégal day am ëllëg après Ngor Soosu fii Serigne Touba ñu soxla ñu ñoral mais xel bu tëmbaambaalu ci àddina bi. suñu yoon nekkul ci moom dama bëgg ngeen bàyyi xale boobu wax mbiri sëñ Tuubaa excuse wu boobu excuse wu boobu mënul am boo amoon ngeen gis ko a presque lu lu fël ñëpp gis ko bàyyi leen di inventé bàyyi leen sos bi bàyyi leen manipulation bi dëgg rek mooy yàgg fen yi doy na sëkk man excuse wu ma ci yàlla ma excuse wu ci baadoola bi bàyyi leen li ngeen di def voilà